Euh, moom ak d'autres artistes moom la ñu fas yéene waxtaanee fiesta boobu noonu elle va faire le tour ñëw moom itam fekk suñu ci euh, plateau bi Ngoné ñu ngi lay gërëm euh, ci teewaay bi tey ci réveillon bu télévision Futur Média wax naa sànq Mbaye Dieye tey du ñu waxtaanee droit d'auteur <laughs> dañu waxtaanee Sodav mais li sa passion bi gën a mag la ñuy waxtaanee muy xale sa sa diggante ak xale yu ngoone c'est-à-dire à chaque fois je reste convaincu que question la boo xamante ni tout le temps dafay revenir dafay revenir passion boobu nga am pour xale yi Sénégal man toujours dama koy bëgg di comprendre ñu ngi lay nuyu. Euh, maa ngi leen di fay Pape Cheikh am naa mbégte ñëw ci plateau bi bokk ko ak yéen. Mhm. ah dajanteeg fii sama mag bu baax di mbay Dieye awa sama xarit. ak yow ñu yàgg lool. <laughs> donc euh, à chaque fois bu ma dajante ak yow c'est vrai que ni tu me poses cette même question. et euh, c' une question bu nga xam ne ni que ni même man sax mënuma ko répondre quoi parce que je pense que la réponse à chaque fois yow da koy joxe parce que moi je me dis dans ma tête sama environnement moom moo nekk environnement wu xale mhm. donc euh, je me sens bien avec avec ñoom quoi je me sens en sécurité avec les enfants mhm. et, pour man lépp ci xale la lépp ci xale parce que y a l'innocence dans l'enfant mhm. il y tout il la sécurité y' a vraiment lu pur quoi moom moo nekk autour de de l' enfant. xam nga donc donc loolu monde boobu daf ma neex daal. dafa mm. nekk monde boo comme des oiseaux après tamit constance bi. constance bi tout à fait tout à euh, toujours dama koy bëgg a xam. dama tout à fait man au fait dafa man j'ai grandi euh, comme ça mm. même avec avant que sax euh, ces émissions la ñu koy créer j'ai grandi avec cette passion de. bëgg xale quoi parce que je me rappelle sama caatu yaay bu jigéen ça j'étais pratiquement presque comme ça mère mm-hmm. man maa ko doon boot maa ko doon kii noonu noonu laa mësamel ba mm-hmm. bi projet bi ñu créer ko muy euh, seen petit gàlle bu nga xam ne petit bal sax moo ko jiitu woon mm-hmm. moom mu waroon loolu ñu doon def à chaque vingt cinq décembre benn fête pour les enfants donc après ça ça amené seen petit gàlle donc seen petit gàlle yàlla boole ma ak ay xale aussi bi ko doon def c'était juste monter un projet le faire euh, ñu def vacances xale yi ñibbi mais je me suis dit que ne xale yi par contre xale yi ma ci rencontré ñu nekk ay xale yu nga xam ne ni que dañu am talent ma ne peut-être que mën nañ ci def quelque chose. si mhm. on on essaye de. former ces enfants là jëm leen gën a pousse ci jàng bi mhm. ñu am benn passion boo xam ne mën nañ leen ci jàppale peut-être que mën nañu participer à seen développement mën nañu participer à ce que qu'ils deviennent quelque chose demain et je mhm. pense que depuis maintenant quoi Sen Petit Gallé léegi am na quatorze ans bientôt vingt bi muy ñëw seen Petit Gallé elle avait neuf ans voilà elle, elle avait bi muy ñëw seen petit donc là elle est là c'est c'est mi ngi nii màgg na euh, macha allah euh, mi ngi am na def na formation am am na mhm. liggéeyam bu muy def mhm. am na talent bu nga xam ne ni que ne àdduna bi yëpp na ko reconnaître na ko mhm. elle a elle a reçu une très bonne formation c'est une très grande chanteuse du du doon koy wax jeune talent ay artistes laa yore ay ay artistes malgré que ne ay 17 ans 18 ans 19 ans 20 ans xale yu ci bari yi nga xam ne ni que ne aujourd'hui font euh, euh, vraiment la joie du Sénégal seen petit gàlle moom moo leen moo leen moo leen moo mm-hmm. leen mm-hmm. donc euh, ñu nekk sama fierté aussi tey jii bu ma toogee ba ci parmi ñoom may commencé ñii di leen may ay jëkkër. ay daf voilà. fierté la man man y' vingt ans loolu laa gisoon quoi. waaw et puis au delà de euh, di leen accompagner ba ñuy dugg ci néegu sëy par exemple. Mm. c'est-à-dire ba ci seen i jàng. ba mm-hmm. ci seen i éducation ba ci mm. seen yar sa à dire accompagnement bi toujours yow da nga ciy insister. waaw loolu dafa dafa am solo parce que pour man euh, xale pour man bu bëggee benn affaire. boo bëggee mu jàng affaire foofu nga koy jaare mhm. je sais que ne mhm. c'est des enfants qui sont passionnés par par le chant mhm. donc pour ñun ñu mën leen indi ci nga li nga xam ne ne que pour man dafa primordial mu xam muy jàng bi mën nañ leen wax ne dikk na leen ne que ne dinañ leen jàppale ak tant que yéen ngi def études yi ngeen ci réussir ngeen bëgg a doon demee kii parce que je les ai toujours dit il faut que ngeen am ñaari métier man noonu laa leen il faut ngeen am liggéey beneen bu nga xam ne ne que du liggéey way kese mm-hmm. donc ils ont cru ils ont ñoom ñëpp ñu ñafe école la plupart ñoom ñëpp ñi ngi université di jàng mm-hmm. ñii ñi ngi sa mm-hmm. troisième année ñii ñi ngi lii ñi ngi ñi ngi def lii donc sant yàlla quoi donc aujourd'hui moi je me dis ci li ci gën a neex yëpp mooy au nga xam ne ne que ne réussir si seen étude moom mooy le fait d'avoir vraiment créé benn grenier boo xam ne ni que ni comme sànq yaa ngi koy wax ci jibaar ne que mm-hmm. am na vraiment relève bi assuré na quoi ci relève boobu xale yooyu ñi ngi ci biir mm-hmm. donc c'est mm-hmm. ça et que je pense que Sen Petit Gallé ce qui est extraordinaire avec cette émission dafa réveiller beaucoup de choses dafa réveiller dafa jox fit xale yi nga xam ne ni que ni amoon talent yi nga xam ne dafa doon nelaw ci ñoom te munu ah. amuñu woon fit ah, wala kii yi amuñu woon fit ne sama doom duma ko de Sénégal euh, de Sen Petit des études et vraiment taxaw si seen passion ba nekk ay professionnels. Mhm. donc ñun aujourd'hui on a vraiment formé des professionnels. Mhm. yu nga xam ne ni que ni ñi ngi fii registre boo leen jox yow xam nga ci dara. Mhm. yaa pratiquement. tu fais partie des premiers à. des premiers animateurs de de de Petit Gallé donc on a on a des artistes. on a on a créé des artistes quoi donc voilà c'est ça. alors euh, euh, à part Sen Petit Gallé euh, y eu des programmes vacances ba ren nag ñu jagleel sénégalais yi.